Nixon tegal ginaar gi tegal ginaar. Eh, eh, yàbbi eh, moom moo ginaar gi dem ñu ko moom. dem ñu ko moom moom moo ginaar gi. maa moom moo ginaar gi bàyyi ginaar xaaral xaaral matt de bàyyi matt de bàyyi ginaar xool bàyyi xool bi dem ñu ko moom jënd moom na bàyyi ginaar gi. maa moom ginaar gi maa moom ginaar gi man gar mi maa ko moom. maa ko moom ay ginaar ko gàngal ay damay gi ay ay dama lay gàngal ay bàyyi ginaar dama lay mëkk de. bo bo bo naa ko met xoolal naa ma eh. bàyyi ginaar gi bàyyi ginaar gi bàyyi ginaar gi bàyyi si bàyyi jilaat bàyyi jilaat bàyyi jilaat bàyyi jilaat gi doo bàyyi jilaat bàyyi jilaat gi bàyyi maa moom jilaat maa moom maa moom jilaat gi maa moom jilaat gi maa moom jilaat gi bàyyi wax ko moom moom jilaat bàyyi jilaat gi jëlee yow boo ma moytu ay xoolal bàyyi bàyyi jilaat bàyyi dama lay matt dama lay matt bàyyi dinaa la matt dinaa la matt xaaral bàyyi jilaat bàyyi jilaat bàyyi jilaat bàyyi xoolal xoolal xoolal dama ne la xoolal sa koor nga jaay sa xoolal xoolal déglul sama ginaar déglul moo moo jëm yow dama ne la rakki garmi du tooñ ay fiin ay waay awa xale dégg neexul ah nii da laa def ndi jaay waaw ma koor gi woote bi lan la koor gi koor gi dafa ñëw xaar ma léegi dama amoon soxla dama amoon gan gu may seet si gan gu rëy gu màgg moo war a ndogoo sama kër ndax xam nga jaraf Youssou Ndoye dégg naa mu mu nekk gan gu rëy ma waroon a lottal nag mais lottalu ma dama koy bàyyi ba koor gi gën a waaw ma bëggoon nga jox ma ay ay ay ay ay kii moom bu demee bu sooba yàlla dinaa ñëw fay si mais yow amee woon nga fi ay bor de déedéet li ma fi amee ci bor da nga naan am na amee naa fi rek mais bariwul léegi man waaw bu jaraaf ñëwee bu ndogoo buy dem dina fi bàyyi enveloppe bu mag si bu soobee sunu borom dinaa ñëw fay sama bor bépp bul ma baarem bu ma fayul ngeen baare dil ma ñëwaat jaraaf xam nga ban jën moo si jën ceeb bi. xam na maka xam nga ban ceeb laa la toggal. macha allah ñun lépp bëgg nañu ceeb lool waaye kii mooy xam naa la ma maa ngi dil ma ñëwaat. ah jaraaf. dil ma ñëwaat de. jaraaf kaa ndogu. dil ma ñëwaat. macha allah. jaraaf kaay añ. baax na jërëjëf bu bu leen bu leen laal bool ana jaraaf. ah jaraaf mën nga koy laaj jaraaf dem na. dem lu mu fi bàyyi. ah lu fi bàyyi. jaraaf bu fi bàyyiwoon dara doo ko gis. quelle déception. oh yi lan yow. réception réception yi lan ngay wax yow. déception. ah kon nijaay jaraaf daa mu mu mu mujjee dem. jaraaf ndogowul man ndoguma. Ah, ah. yéen ndogule ndogowule. Ah, dégg nga waay bool bi. yaay dañ Dul. ndogo duul tey ani sajja ki génnal duus génnal duus bi laa la wax jox sama ji eh ku nit dus du wax eh bàyyi ma ma sajje ko dama ne la sajj ko ngay ngay laa ci yemaale boo jonkane na nga jóg jonkana la sama satu. ku nit dus du wax bul jonkan dugal dugal jox sama satala bul laabu bul laabu génnal dus bi yow sama satala bàyyi sama satu ji xaali bàyyi di jël sama satala xaali bàyyi di jël sama satala xaali ci koor lañ nekk bu ñu nekkee si koor nag foo ma fekk toroxal ma bàyyi li ma dama doon sàjjeeku bul tooñ bàyyi li nga sàjjeekoo ngay ngay laa ci yemaale ah. soo bëggee looy raaboo na nga ut sa satala ak bopp amal jóg as asalaamaaleykum maaleykum salaam aw lan la yow yow li ngay yow xooy xooy xooy toppandoo yow yow laay laaj yow kan ngay xoolal amay amay amay ñàpp sa xoon de dégg man aw aw aw koy toppandoo yow man ma sa morom de ah man lii boo ma ko defaatee amul amul amul amul lool la bo bo ay yow amul amul amul boo amul amul amul baa ma sa morom dégg la ma la yow yaa war a tey sa gémmiñ yàgg ba sam c'est là yow morom yow yow yow yow yaay morom kan yow feste nga yow yow yow yow lii la la yow la la yow mbaam am na laa ilaaha illallaah jombi weeru ko daw mbaam laa soxla idi waaw. Eh, ini waaw ini waaw. kaay leen nga owaale asu ngeen ñëw. jinne ñëw na si kër gi jinne. weeru koor dañ daan tënk ñëpp ñam baam rek taxawal foofu. li jaay lan la waay jombi naa. li jaay lan la jinne la jinne. anam jinne jaa ngi nii. jinne jaa ngi nii. jinne suba teel bi. génneel ma ko kër gi. wa jërëjëf ay waay ba jamono doon neex weeru koor. dañ daan tënk jinne yi ak dëmm yi. xaw nu def ba rëcc. idi génneel ma papa wàcce génneel ma ko lu ci fexe. det ko det ko. Madias waaw bu la bu la bu la dara métti bu la dara métti. yow jinne nga man man man man jinne laa. saka jaa ma ka jaa bu jaar ci kenn jaar ci man mii di ndey jaamu. moo bitik bitik. waaw moo batak batak. bu ngay dem anjumaan mi bu ngay dem ar moo min. acca gin ar gaay moom min gégg ca gin. saka jaa. sa xaalis sa gën a bon. waaw bu yàq bu yàq dama koy tas dama koy tasaare. li ngeen di def xaalis xaalis da ngeen koy nëbb yow yéen a gën a ñeme yàlla yow yaa gën a ñeme yàlla yow xaalis xam nga lu ma lay xamal xaalis maa la man maa la ëpp boo waxee loolu da ngay wax lu la neex yow maa la man da ngay wax lu la neex da ngay wax lu la neex xam nga ma yow da ngay wax day wax lu ko neex yow yow xamante nañ yow xamante nañ xamante nañ yaa ma mën yaa ma ëpp doole xamante nañ yow waaw yow xamante nañ yow yow yow seexuma yow tous seexuma ak yow dama ne waaye yow xoolal bu baax li yow yaay xool li ngay def yow yaa ma man bañ orek jàmm yow boo ma mënee dinañ si xam dara bañ ore jàmm ban ore jàmm bañ ore jàmm ban ore jàmm yow toog nekk ci yàpp nit di lekk di seex weeru koor gi ngeen di waxoo dëgg yow yow bañ ori yow dinañ ori xaaral bañ ori xaaral bañ ori waaw bañ ore jàmm yow ma man yow nee nga yaa man man xaaral bañ ori bu toog bu ko toog bu ko toog xaaral bañ naan yow looy def nii nday sawee yola malal tee bi yola malal tee bi waaw yola malal tee bi nday saw bàyyi bool bi dama koy tuur soos bi waaye waxoon naa la démb wooru ma dama amee enzyme nday saw yow ñàkk nga jom de nday saw da nga nar a nekk ci kër gi ni doo woor bàyyi lii eh, eh, eh, lii dafa forox dama koy tuur bàyyi bool bi bàyyi bool bi bàyyi bool bi yow yow yow yow yaa yebaate nga naan wooru yow ku la toppa nga lekk waa kër gi si ko si weeru koor gi yow yow ku lekk yow laay waxal fii kuy lekk amu fi laa la kuy lekk amu fi am na fi yaay ndeyam yaay ndeyam am na fi yow yabaate nga de yow yaa gën a yabaate ñëpp yow fatta nga ñu torop yaa gën a saytaane sonal ñëpp yow maa tay laa wax waaw maa tay nga mën a yow lan la lan moo sa yabaate yow yow yow yaa ñu lakkal yow kii bu leen ko saytaane mu lekk ma ni nga bàyyi jàmbur fii kuy lekk amu fi kii li muy lekk baayam moo ko koy jox baayam yorul tus ba baayam daa dundal ah, doomam dundal ndayam yorul tus may ñu sunu jàmm yéen seen gandaay du seen baay du seen yaay yow dimbali ñu la fa la ñu mu jox yow repas bu mokk bi la ñu ut suukar ndayam nga ngay am nga sens si bi jërëjëf. ooy daw looy daw ma fenn non non dafa daw. ayca na dem si na la rek. mool bu caaga bi nga doon mool bu caaga bi. tey fekk may nalaw. nijaay kii dama ko wan. ko loxo kii li ma ko wan biti ko loxo door ko sama jabar nga yab la biti ko loxo laa yow xool naa bu xool éducation fekk ma ci xool naa bu xool la doo kilifa man ngay wax garmi ah kandu garmi garmi day def yëfu garmi man gara rang bi garmi day def yëfu kilifa kii moo ñàkk yow doo dara yow yaa ñàkk jom ah bi ngay jógee Tataguine wàcc croisement Cambérène ak sa ëmb bi dafa faa dem ba utal la nga mindaanu ah sama mag gis la bëgg la nga bëgg maa yab sama jabar da lay door mu ñëw fàtte yu xam laa ilaaha la yaa ma laa seet yaa yabaate la moo tax may fekk ma tëdd di nelaw nga am osé di ma fekk sama kër di ma yee. waaw ah, père yow du ma la déglu booy du ma la déglu doo dégg li ma la wax xanaa noppil yow yow da nga xanaa yow. li goro ko man de. lii eh, xem na ma ko suukar su koor rek la. borom fukki penc ak ñaari. ndeysaan ah, ah, tey ma way ci pannal waay yaa ko composé jaraaf aw faw ma tudde la gaal almaami ma ndaw paal jaraaf baax nga ana xaali haa sacc baa ngi nii sama enveloppe buñ ma jox nga bu ko jël lekk ko. ñewal ni yow eh yow dimbali ma ko sama enveloppe duuli bu ma sonal la wax. Eh, bu ma sonal duuli dama ni sama enveloppe ban enveloppe. xaw ma sama enveloppe nga man ma enveloppe. yow dama yorul sa ben enveloppe yow xana da danga dof. dama ni kan moo la jox enveloppe jox enveloppe cinquante nga jël ko. waaw maa tay ma tay yow xana yow xanaa danga dof yow ki dama koy jël sama sama fukki junni da nga foog da. dama ni bàyyi sama enveloppe laa wax yoruma jox ma enveloppe laa yoruma jox ma enveloppe yoruma li ma jox enveloppe eh dama lay mataat dama lay mataat boleh, barki Serigne Moustapha Dia da ngay tak say bagage xaw lu toppale bu soobee yàlla rek mel ni xaw ma lan. salaamaaleykum. sëñ bi na nga def. kii ñëw fi ne ñëw fi ne tuur tuur fi mbañ. lii lan moo ko fi jar lii ci mbedd bi ngay wër oto mbalit yi. pour lan sama ñaar fukki junni mo nek ci enveloppe ñaar fukki junni mo ci nekk ah saay bu jëm fo jëm wayu ki fa Babacar babakar ken gënuko su ñëwé fi ne dalay tak yor 5 millions say morom yiñ fi jox ay ay 15 millions ak 30 millions. 50 millions gënuñu la. gënuñu la gënuñu la liggéeyam ndey. té dina ci am wayé saka bax fi ngay commencé bëgguma ko tey bëgguma ko suba té sëyu yu ngi. ñu wërsëg la ko bëgg ba ma koy forcé mané nitu wërsëg la. mais li ma nar ci saka du ci paré si paree saka miir na ba pare. saka miir. waaw. seetal ma lii. ndax li ñuy def bu ñu pare lu raw miir sax naka def day dox di daanu. moom mi sax. waaw yow mi ah affaire bi du si jëmm ji si xol bi la. kon mi ngoogu daal. wax naa la ko defarul. bu ñu sàjjee ko ba pare. defarul ba ba ba jeex juróomi million sax dinañ ñu ko jox. ah ndax juróomi million du dara. waa demal. waaye fi ñu neel alhamdulilah alhamdulilah te jot na. jot na jot. gisal naa la jonga ma 4G boo xam ne. Oh, am na devant am derrière. tey di nga de. yu <laughs> ay yow kii kontaan na de. gën ay ah. ay Idrissa. xale yi daal duñ wax waxi xale mu. ah, ah. may ma ma ma ma woo. ok woo ko baax. Ndeye Sow. Ndeye Sow woowi. may ma rek mu ñëw ko téléphone bu gaaw xaaral rek nday saw wa waa xanaa nday saw day law nday saw. idi tak da jaawar nday saw ñëwal da jaawar idi takk nday saaw ah da doon nalaw non nalaw ma dama do sol ay yow sama dom ji dafa jong nga ma de xol li nga belle ni nga mel li xana jess net ma la doon la mo nga def rob ni ah ca nga nday Idrissa uh-huh. nday saw nga ni ah ki la la bëgg may xool ko bu baax gis ni mu jonga ma <laughs> waaw. eh Idi mi bu kontaanee day kii du muy jooy nii mel ni ku laal garabu jàmbur ni